li tax may wax ci diggante Zeyna Ndour ak Sadio Mané wax nañ ma ko bu yàgg dama noppi ndax man du may dugg ci loo xam ne sama yoon nekku ci ah ma ne loolu de bu amee dina neex ci laa jël man xool macha allah macha allah xale bu jigéen bi na bëgg rek te bëgg na macha allah macha allah góor gi tam góor gu dëgg la ñoom ñaar ñëpp seeni waajur baax macha allah rafet na trop wax dëgg yàlla rafet na joueur yi ñëw leen takk ci xale yi sénégalais yi dañoo rafet de taarikàlla laa yi day dëllaa macha allah xale yi sénégal dañoo rafet macha allah macha allah laf cat rek wala yéen ñëpp samay doom ngeen bak Seydina Mouhamed joueur yi ñëw leen fii ci xale yu jigéen yi macha allah